Ansar TV gaaw leen gaaw ngeen bés cloche bi su ko defee ngeen doon membre abonné di am en temps réel tous les événements dañ ci ànd ak Serigne Saliou Seck dalli na jàmm politique daal ron-ron la ku nekk ca ron nga bëgg xam la ca kaw faawu nga teen moo tax jamono ji ñëpp a teenandoo doon séentu élection falum député yi nu jàpp fanweeri fan ak benn ci weeru sulet atum 2022 ba xam day am wala dañ koy ràndal loolu observateur ne léegi leer na élection falum député yi dat ban ko jàppoon ca lay amee lu aju ci temps d'antenne bi candidat yi war a amee ca RTS président Macky Sall tënk na ko ba noppi journal Futur Média bi yokku ca ne ci élection lu ëpp 15 500 bureaux de vote mo ci nara am juroom ñaari millions yi électeurs nar caa utali source a ne xel ñaar jeex na ñi doon xalaat ñu dakk élection falum député yi seen gënt nax saay na vox populi ne wéri fan ak benn ci wéru sulette lan ko yene kay bi yokku ci ne campagne électorale baat buñ ca yeggé président Macky Sall nee na ku nekk juróomi minute ngay jël ngir yay ci askan wi ci diirub campagne bi nekkit campagne bo xam mo nara nar xelu wone yu ndaw yi ci biir mboy gi ta daagu jinne yu magat yi nga xam ne kenn ndax min nan seenu ngalaju li quotidien lu ci man di am daal président Macky Sall tënk na temps d'antenne ba ca chaîne nationale ci juróomi minute journal L'Info ne lu ëpp juróomi ponk waa forum civil nee nañ bëgg nañ ñu xoolaat ko ca péncum ndawi réew ma di assemblée nationale na ci coalition yi koy xëccoo ku nekk wax sa mébét ci ya nga fanar budget bu assemblée nationale ay rapport yu leer ba ci règlement intérieur baat ñu xoolaat ko forum civil ne bëgg nañ itam ay journaliste yu xarañ di teew saa nekk foofee ci assemblée nationale réew mi journal laas nee na lu aju ci wàllu industrie bi extractive Sabodala Gold tabbal na lu toll ci ñeen fukk ak juróom benn milliard ci xaalisu CFA ci kees yi nguur gi le soleil national moom xëy dalal directeur Afrique bu FMI mu fay xamle taxawaayu réewum Sénégal ci wàllu koom l'observateur mel ni ku naan wàllu koom googee nar naa sa ngéemloo budget réewum Sénégal te bokk na ca la ko waral guerre bay xew ca Ukraine production agricole bi itam boo moytuwul dina wàcc lu aju ci production gas bi pétrole bi moom nar naa yeex lii a tax ba inflation bi di dépasser njeextalul atum 2022 quatorzième biennale des arts de Dakar enquête yéenekaay gannaaw gëstu bi mu ci def moom échec total la ca gis échec total mooy am ci biir njaboot yi journal bés bi le jour taxaw seetlu bu yaatu la def ci yenn ci ñaawteef yu gune yu jigéen yi du dundekk seeni waajur yu góor waajur yi bébé Aïda mën nañoo bekk libération yéenekaay ne bébé Aïda mooy parental ba ñu sàccoon ca Pikine Sira Diallo ma ko yóbbu woon moom it démb lañ ko yóbbu kaso ba noppi ubbi ci moom ab information judiciaire koy yoot Jator Mbaye léegi ko yéenekaay mi bind xibaar bi ne léexoor ci wàllum suuf gu toll ci fukk ak juróom benn milliard ci xaalisu CFA lan koy tuumaal tuuma ak kàddu yu ñàkk teggin yi nuy tekk ci nit yi diine yi moo yitteel Walf Quotidien waral ba journal Front de Terre bi di artu naan wax ci jot na la mbay di ñaaw direct news moom xëy def gëstu bu yaatu ci séeréen saafeen yi ak seen cosaan les larmes de Moustapha Nam nekkul ci l'observateur waaye bi yoon l'entretien de Moustapha moo fa nekk champion d'Afrique bi la te nag biir na ko ni saa yu bu déewam fenkee ci biir équipe nationale bu Sénégal rek dina laale concurrence boobee El Hadji Ousseynou Diouf xam na ko ba tax ci stade yéenekaay mu fay xamle ni ba fii moo nekk ballon d'or ñaari yoon ci réewum Sénégal waaye nag day ñaanal Sadio Mané jël ko lu ëpp ñaari yoon record yéenekaay mel ni ku jox Sadio Mané ballon d'or bi ba noppi dem sax ba naan bu nu àggee ca ndaje ma Salah ak Mahrez ñoo ko nar a gunge ca podium ba gunge waat leen ma ci page 6 bu l'observateur ñu ànd xooli la fa Awa Seck bu l'observateur bind enseignant benn étudiant bu jigéen ak ñaari élève ak benn jaaykat ñoom la fa police jàppeek 22 juin yamba Ansar TV gaaw leen gaaw ngeen bés cloche bi su ko defee ngeen doon membre abonné di am en temps réel tous les événements